ak mboolem njabootuk sëriñ joogu gépp ak sëriñ Cheikh ak sëriñ Baara Seynabu gépp di jël nuyoo boobu di ko teg ci loxol sëriñ xàbbaan ak mboolem njabootug sëñ Fallu gépp kàddu yi nag kàddu yi sant lay doon rekk ak yooyu ngërëm ñi ñu jiitu kenn mënatul a wax ay kàddu yu tege ci seeni kaw kàddu kon sëñ Fallu nee na ak ci turu njaboot gi yépp Santigi gi fum fum tambule waye amut fum yam yem nañu bu bah, bah, bah, bah, baax ba fu sante mana yam rek neena sante nañ ko bu baax ci jëf ji nga xamne def ngeen ko deug la def ngeen la ngeen wara def waye ku def lam wara def nak ak cyant amel nañ ko ko bu bah baax yef yi reyni ci ñun lool xam bu baax itam fim ñu toll xam ko de wallahi jàpp nañ ko bu baax itam gën nañoo jàppaat bu baax itam lu baree baree bari ci njaboot gi suñ fàllu nee na mi ngi sant bu baax sant nag sant la tudd waaye ku defut dara kenn du la kenn du la sant kon jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf euh, kàddu yi fi jiitu yëpp rafet na am na solo lool tege na it fi mu war a tege ba tax na kenn mënatul a wax sax daanaka lu am solo wala luñ lay deglo waaye señ jogu mom señ Fallu wax na ni ñu wax rek ne mom ab julit la won pire di talib serigne Touba di murit sadiq barki dembu rek señ cheikhum señ Abdou khadir mi nga xamni moy kilifa kër gi señ sëñ ngi ni teewal ko fi dañuy wax téléphone ma diko wax ma diko wax mbir mi mu bég ci lool ba gën ñu cee bég sax nag daa di wax ne nanga xam ne daal moom sëñ Njóogu moom jullit piir la waaye morit saadix la daan seex Cheikh Mbàkke moom mën naa seere loolu loolu itam nag njullit gi moom ku ne xam na ni ñi jamonoonte woon ak moom ñëpp ak ñun ñi nga xam ne ay xale lañu woon ci kanamam sax njullite gi dafa jéggi woon dayoo gëm gi yàlla te kennal ko dina ñew ci murit sadiq bi bis bu set laranjang la daan jang kamil alquran la daan jang bis bu set nak la wax mbollem ak njabotam mu digal len ne len ak lu jamono khat khat lu ngeen tabja tabja jukip alquran bi mom senu dog bum mu jénn mukk senu dog itam ci qasida bu mu jénn mukk njabot gep kenn ku nek ñanga nga cey def sa kem kàttan beggon gi alquran dafa jeggi won dayo man mas na maa daw jóge ca daara ja daw ñëw mu ne ma benn baat rek la ma wax dafa ni ma mbaa xam nga ne mokkal alxuraan wala nga dee lu la ci gënal rek waaye alhamdulilahi rabbil alamin njaboot gépp tubaarkàlla suñ bàcc mbàkke ñëwoon na fi sax nettali na ma ne ma suñ fallu da ko yónni ci suñ jógu ay yoon di ko ko wooloo saa yu ko woowee rek balaa dem da yeesal njàppam doog a dem mu def ko ay yoon benn bi sëñ bàcc ne ne ko laaj ko ne ko seetlu naa ne saa yu ma la waxee wuyul suñ Fallu da nga yeesal sa njàpp doog dem mu ne ko ñooñu kenn du leen jox loxo te àndookum njàpp foofu la tolloon moom beneen bi ci des sëñ Fallu jumaada rahimahullah nettali na ma ne ma xam nga moom maamam la woon dafa ñëw ci soxna su gaawaan mu yoni ko ne ko demal ci sëñ jogu ne ko na ma jëndal mburu mu ñew wax ko ko mu daal di koy jox mu dem jënd ko ba noppi daal di ñëw teg saako bi daan ne ko daf ma waxoon ne ma nga andil ko sa bop de mu ne ko moko wax mu ne ko waaw mu daal di koy jël mu ne ko dani woni nga yanu ko neena da ko yanu jitu ma top ci ginnaawam sëñ fallu moo koy nettali la mu ne mu jitu ma top ci ak yi dox bu baax mu yanu mburu mi noonu la ko yanoo bàgg soxna su gaawaan jox ko ko foofu la tolloon moom ci ak taalibe ganaar mii rek ganaar daana ko lekk de waaye dawu ko rendi ci këram gii parce que nee na du ko fi rendi mukk te doomi Sëñ Tuubaa nekk fi moo tax it yomb na lool nag waaw alhamdulilah <laughs> waaw macha allah <laughs> kon ñu xam rek ne foofu la nekkoon moom jullite woon lool ba noppi doon murit saadix nag kon nag ñi ngi am mbégte bu baax ñi ngi leen di sant bu baax a baax a baax di leen gërëm bu baax a baax a baax a baax sëñ Mourtala nettali fi na rek léegi sëñ Fallou ni mu ko ni mu ko defoon suñ Fallou da ko taxawu de wallahi da ko taxaw taxawu na ko lool lool lool lool te xam nañ ko bu baax itam taxawu na ko lool ci anam yépp nag ci anam yépp bu ma saani ñëw fii rek day bu ko fekkut bu fekkee ca jumaa ja danaan du wax wol mako de danaan ko demal mu jox la caabi negam nga andi xol len lol rek wayef gi nek ci bir wan ko ne ko ma yow wan ko ne ko tuar kala dal sëñ bi sant nañ len de geureum nañ len bu baakha a baax xol yi xol bi nak sedd na ba xëy liñ bëgg genn lepp mënu ñu ko genn ci kaddu waa kër sëñ yogu gep waye na ngeen sant nañ bu baax kilifa yi fi nek yep yitam gis nañ ñep xëy buñ duggé ci limbi dafay xaw a dafay xaw a doy waaye gis nañu ñëpp sant nañu ñëpp gërëm nañ ñëpp ci taxawaay gërëm ñëpp sant ñëpp ci taxawaay suñ suñu am sa waa suñu am sa waaw Abdul Ahad mi ngi nii toog sëñ Yuusu mi ngi fi ak sëñ Mor sëñ Muusa ak ñëpp daal xam nga bu ma limee rek wax dëgg yàlla waaye kilifa yëpp a ngi fi kilifa yëpp a ngi fi te yëg nañ leen yéen ñëpp te jox nañ leen seen seen seet seen wàccuwaay yéen ñëpp kon nag sant nañ bu baax gërëm nañ li ci tegu nag mooy bu noppee bu sëñ bi ñaanee bañ julli ba noppi bañ julli ba noppi incha allah fii nii ci bâtiment sëñ Fallou bii fi la yenn kilifa yi di dem délégation bi maanaam tête délégation bi ak yenn kilifa yi ñeneen ñi nga xam ne ak yenn kilifa yi invité yeeg ñëpp ci lañ bokk ñeneen ñi nga xam ne ñoo xaw a gën a féete ak ndaw tuuti dugg ci appartement Sëñ Abdu Rahmaan bii moom itam mboolem koo xam ne nag jigéen nga mbaar mii ci biir kër Sëñ Abdu Xaadir ñoom fa la ñuy dugg kon loolu mooy ndigal li su ko defee itam ñu dem fa bernde yaa nga fa ndax itam nag jaral nanu lu ne lu ne lu ne bis bi jaral nanu ko kër Sëñ Abdu Xaadir gii moom sëñ Njoogu mooy bâtiment appartement bi itam moom itam ay bernde nga fa kon kër gi moo noonu la demee fépp bernde yaa nga jaral ngeen lu nag lu ne lu ne lu ngeen jëf wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatu